salaamaaleykum wa rahmatullah ah, imaam Bousso ak mbokk yi nga àndal yëpp maa ngi wax ci turu njabootu sëriñ Abdou Khadir Bok, nga xam ne da doon seen mbokk di seen wëlëre wu yàgg ngeen ngeen mayoon ko ci seen bopp saa boo xam ni ñi ci seen waayit ni ki kori ba tabaski booba booba nuy ay gone lol fa señ bi nek sax daawuñ fa mëna ag àgg dañ daan njërdu ci kolestra di di leen gis waaye daawuñ dem ci fi señ bi nek mbolam mi di ko fi siyaare bobu lañ tambi di leen gis tak takusan bu ne ci kori ba tabaski ñu leen di gis rawatina na magali lolana loola nag kon kóllëre rek moy gi ngeen di dox batay ji def ngeen ko ay at yàlla nañ ko def at yu ëpp fuuf nun ñëpp nu dooni mag ñi doon ñi ci gone dem ba dooni mag mag ñi it yàlla bàyyi leen fi ci kanam njaboot gi mu doon kóllëre gu duutul dog ba mukk ba faw ba ba ñuy tàbbi àjjana yi yaa wax euh, léegi li ne Sëriñ Tuuba li ko ñor mooy diine rek lislaam loola dama la ci firndeel dara ba mu ba muy doog a jóg noonu nga xam ne euh, lenn ci zuhaad yi ku mel ne Uwaysul Qarani Ibrahim ibnu Adham ñooñu nooñu yoon woowu ñu jaaroon loolu moo doonoon bëgg-bëggam ci njalbeen nga xam ne day bokk ci ñooñu nga xam ne duñ amul njaboot duñ day dem ci àll bi rek dëkk bi mu ko mébétee sa mbokk sëñ bu soobe mooy nijaayam bi ko sëñ bi junjee xam ne li sëñ bi bëgg waaye xam ne ni mënu ko cee génne waye mu sàkk pexe ne ko dama bëgg tukki tukki bu sori de bobu señ bu soo bi li señ bi bëgg waye señ bi waxuko ko ko laaju ko mu ne ci yàlla rek mu ne ko wa lolu baxna waye kon euh, muxtaar pend si nang fa jaar taggu ko bala ngay dem kooka nag yalla def na neñu ci guddi gi sëñ bi jog na ñaar yeen fëgg señ bu soo nekkoon ndax asamaan si moo doon tim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw asamaan si di seen see mu ne kon kon dara weesoo gut ne mu toogaat ba yàgg mu ñëwaat fëgg ne ko suuf si ndax mooy si yonent bi doon dox sallallahu alayhi wa sallam ah, waaw suuf si kay seen see rek mu ne kon dara weesoo gut nga xam ne loolu lam ci jublu bu fekkutoon alxuraan ak hadiis yi moom suuf si nga xam ne yonent bi daana ci dox ak asamaan si daana ci dox doy na ko ci pas-pasam mu am li mu bëgg ci yonent bi rawatina nag kon ba mu fi fekkee alxuraan ji gàddi si loolu rek dama lay dëggal ci loolu nga wax ndax ñi ko xamul gën koo xam loola yàlla def na loolu moo doon yéeneen bu njëkk bu lam bëggoon a def su ko defoon nun ñi duñu am waaye nag euh, mbokk mi mu waxtaanal muy mo sëñ Moxtaar Pend si mooy mooy mooy mbaay sëñ Moustapha mooy maam yi sëñ Moustapha si ñoom moo jur sëñ Mor Xari si ak sëñ Malick Bassine waaw ñii dañoo bokk ci yoonu Tijaan ñi bokk ci yoonu Serigne Touba ñoom ñaar ñooy ñëwoon Serigne Touba ñu ci des ñëpp ñu ngi ñu ngi ci waaye bokk genn gi ñoo ay bokk lañu ak ñee ci Tiwaawoon euh, Sénégal moom benn bopp lañ waaw benn bopp lañ ni nga xamee ne ceddo yëpp benn bopp lañ doomi soxna yëpp benn bopp lañ loolu loolu la yàlla defal Sénégal moo tax jàmm mën fi am te yàlla na ko fi saxal euh, suñ Moxtaar Penda Si moomee nag moom moo moo ko ca. ma wax ak moom ne ko gis naa daal nga ëmb ëmb bopp foo ko imbi sonal say bokk ne kon dañ dañuy takk di la fekk si li gën daal nga nga nga imbi ko fii ci sa biir yi bokk ndax ñu mën cee jariñu laa lay de mu wàññee bi sëñ bi bi mu delsee mu ne ko ah dangaa demut sax sëñ bu soobi mu ne ko ah damaa far ñëw mu ne ko na ma ak sëñ Muxtaar lii la ma mu ah xamoon naa ko waaye damaa yaakaar bool bu ma la ko waxee doo ko nangu <laughs> tubaarkàlla loolu nag kon koo xam ne nag yow doyloon nga rek suuf su yónent bi daan dox ak asamaan su ko daan tiim doyoon na la ci tegtal nga mën a dox ba am ci moom li nga bëgg rawatina nag mu fekk fi alxuraan ji nga xam ne yàlla moom moo ko fi wàcc te wattul ko boppam inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun loolu euh, loolu moom wér na ak ak addis yu wér yi waaw yooyu moom mi ngi fi ak gaa yu baax yi sëriñ bi boo ko xoolee balaa ku muy tudd na tagg wa def ci yow ñala la topp mënuñoo def ci yow tagg bu kopp ñëpp ñëpp noonu la ci noonu la ci mel jéng na nag noonu murid yi daan nañu wala tuaadu man raaytum faahu yafuhu laa ilaha illa ku ngeen gis muy génn ci làmmiñam di wax laa ilaha illa allah bu leen ko bañ loolu moom ku ko def yaa ko yaa ko def ah su boobaa nga wax foo ko teg bu ëllëgee ndax mbir yi yëpp lijjanti lay doon te ëllëg la fii moom yàlla dafay mën a seetaan lu baree bari ndax dégg naa euh, bis da koy wax ne àdduna di li tax munta jàkk yàllaa ko sàkk waaye da koo sàkk wut waxtu woo ne bu ci àggee da ko yàq kon ki juddoo ci biir àdduna mënu fee def lu dul yàqu loolu nag moo tax moom ñi ko xam ñëpp dañ ko wacc dëgg la nag fàggu fi looy jaamoo yàlla looy sàmme sa ngor dégg nga ak looy defe lu baax loolu moom kenn ku baax bañu ko waaw loolu la ñuy digal ci loolu la ñu war di nekk yéen ñii nag saa su ne waxoon naa ko waxati waaye wax gi du mat bàyyi benn yoon dangeen bokk ci ñi nga xam ne mën naa leen ko seere ndax dama leen a xam ñi nga xam ne ñoo noonu ak ñoom a bokk ci dëkk bi bokk ci bàtte noonu da daan jaxasoo ak waajur lu yàgg am ci ñooñ tubaarkàlla wàcc nañu liggéey ku mel ne rahimahullah mu koy dolli ñaan yàlla di ko dolli xeewal ak yërmande dañuy natt ne bu fi nekkoon ànd ak yéen ci li kon seen jëf ji bokk na ci ñi ko taxawal yàlla na ko wàllam di fekk fa mu nekk ndax yàlla du du du ndax man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha man ajru man amila biha kon loolu bokk na ci ñi ko taxawal yéen ñi tam nu seq koog yéen tey ji noo ngi ñaan yàlla mu mu yàgg lool mu may nu jàmm mu may nu wér waa defal ko njaboot gépp ngeen xam ne nag kon euh, kenn ëppale wu leen fi bu dee bokk am ngeen ko fi bu dee itam euh, euh, bu dee itam kóllëre am ngeen ko fi wax naa leen fii ba tàyyi ne leen sëñ bu sëñ mbuso bi mooy nijaay sëriñ bi te sëñ mbuso bi ab taawam Cheikh Umarul Fuuti yi la ko tuddee. kon kóllëre gi yàgg na fi sëñ Abdu Xaadir mi musta dem Dakar te seetiwul euh, si Cerno Seydou waaw mus musta dem Dakar te seetiwu ko waaw loolu kon loolu yàgg la ñu euh, amunoo ak yéen benn wenn dikk noo bokk diine moo bokk lislaam bokk tariixa ñoo bokk bu dee ci fiq ñoo bokk ni ñëpp ay maliki yoon lañ dégg nga ñoo bokk di jàng wars loolu moom Sénégal sa defal nu xaas joo xam ne defal ko ñëpp waaw ndax bu dee bokk gi deret ji day day day jaaxasoo bu dee ci diine ji itam mm, ay jàngukaay yi daa bari ay jaarukaay yi daa bari waaye yëpp jëm ci ndax lu ci wuuteeg la yonent bi tër xam nga ne saxut waaye yi nga xam ni ñoo ñoo yoon yi nga xam ne si yëpp dafa wéeru ci yonent bi ak ñi nga xam ne si ñooy fooree lislaam niñ ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu fireele alxuraan ji ak yi ba génne ci fiq téeri fiq yi loole it dañ caa far bokkaat ay yoon yu ñuy yi jàng fii rek mooy foo dem moom nga fay jàng kon loolu ak yombal la gunu mag ñi defaloon yàlla mu bu bu mukk ndax moonu may jàmm bu dul loolu fiq werant wi daa bëri ndax man maaka mën nga ne ngirum ilimaan Maalik rek li ci nekk ci ak wuute jéggi na dayo te nga doog nag indi masaahibul arbaa yeneen yeneen ñetti ngir yi ci des waaw kon loolu waaye sa baaxe nanu noonu nu bokk ci ngirum Ilimaan Malik li ci ëpp moo ci ëpp waaye ñu xam ne loola itam xilaaf masab yi du dara xilaaf masab yi xilaaf ci tarixa yi du dara bu fekkee ne tarixa yëpp mu ngi dellu ci yuy topp sunna la ñooñu ñëpp benn lañ loolu ba ci ñi ñuy woy sax euh, salafiya salaf muy tijaan muy murid muy xaadir kuñ kuñ ci ne nekkoo ci toppoo salafu saalih yaakaar naa nga jëlu yet ah ah moom ci <laughs> nit ñi xamul rek wante salafu saalih moom moom mooy mooy saxaaba yi rek ak taabihoon yi ak taabixu taabihin yi ñooy ñooy ñi ñu jiitu ci lislaam loolu loolu yàlla nu yàlla musul ci wuuteeg ñoom <laughs> ndax dafa tolloo nag kenn kenn ku ne ñii am nañ ñii tasawuf bi euh, moo lëkkale moom tarixa yi tarixa yi moom la ñii ñoom li ñu wutale ñuy wax salaf si fi dañoo nekkul ci duñ di ay mutasawif yi ñun ñu mutasawifoon lañ tasawuf bi nag ñun ku xam ku xam ak ñu ku ku xamut fi nekk waaye noonu gis nañ li ci nekk sëñ Sàmbaay mas na koy wax gaa yi neen leen lam saf lam saf ka ko macc ko xam <laughs> waaw loolu nag mooy li ci nekk man ngay gis waxi benn benn dafa am sëriñ bi sax da wax ci masaalikul jinaan kalaamuhum kalaamuhum isa dahaaka ya yaa balit waxul kama qaala zaki abdul wadud abdul wadud waxi wali bu la jaaxale waxal li abdul wadud waxoon abdul wadud naar bu gànnaar la kalaamuhum isa dahaaka yaa balit faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaama law liyaay lastu li ànd ana ana waxum humu neen boo ko waxee mucc man la waaw boo ci gisee lo xam toppal bo ci wax lo xam ki wër leen walilu nitu yalla ko anu du ma yalla te ma ngay topp ma ngay def lu baax waaw kooku bàyyi buy wax lo xamut maandu ci ñun da loolu lañu sant te yaakaar naa ni kilifa yëpp loolu lañu santaane buñ ci saxee itam nekk di ak werante yooyu amul njëriñ amulul njëriñ Sénégal waaw ni nga xam ne daal ni lañ ko taxawee woon gisuma lu ci jara soppi kenn ku ci ne xool yoon woo xam ne jàpp nga ni yii boo jaaree àgg te yoon yi li bari na waaye lépp boo demee ba ci dàtt ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga koy fekk waaye lépp bu jaar mu jëm foofu rek ñun def nañ leen lu seen topp waaw loolu rek mooy mooy doon waxtaan bi xam naa ne yi bari na te yéen a ngi liggéey kon du leen bëgg téye waaye du du ma tox ki mukk ci seen jotaay ndax xam naa ne aw yiw rek ma leen yëkkati te lu ngeen fi daan dox si démb ak tey la donc seq ak sunu waajur donc seq ak sunu mag tey yàlla ngeen di seq kook kon nag la jëkk ak li teew lépp ak li ci kanam te xaw yi yéene ko saa borom yàlla na ci def kàttan te nangul te nangul nu lépp waaw nu yàgg ko ànd waaw lii moom dara gën ko rëy ci nit am yitte dégg nga ndax euh, boo ko xoolee màggal yëpp rek day dellu ci sant yàlla waaw sant yàlla nag mm, warees na ko ndax euh, bu la mayee ku baax war nga ko caa sant kon nag noonu loolu rek mooy ci sànni Sëñ tubaab bi muy digle màggal gi ñi murid yi xër naan naan ko tabaskiwaat ndax lim leen waxoon ñu ko ciy dafa ko dégg xeebul dara ci niru bidaa moom ndax da ko dégg rek daan ne déedéet bu leen ko waxati tabaski waat loolu day niroog bidaa dee leen ko wax màggal baatu màggal bi looloo ko andi <laughs> mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal ci réew mi dañu bokk ak ñun bis bi ñëpp maa ngi leen di sant bu baax ci turu sant it ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal euh, Serigne Touba ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu Serigne Touba seen njaboot ak bokk taalib jullit yëpp rek ñëpp tey dama koy wax sax réew mi li ci am demb fii ngeen gis ni amoon na fi koo xam ne mi ngi fi woon bokku ñoom moom diine mm-hmm. waaye nag euh, sëriñ Tuubaa dafay koo xam ne yaakaar naa ci nit ter bu jul am na lum liggéey loo xam ne si kenn ku ci ne mm-hmm. euh, ca ngay xool ba ba am foo ko teg mm-hmm. waaw dégg bi la yenn ñaari fan sax la ko ci fan moom waaw ñëpp euh, kii lay doon yéen nag danoo bokk yéen lépp mm-hmm. ba tax na nag kon noo ngi sant mbooleem ñi nga xam ne si rek bis bi yëg nañu ko mm-hmm. ñoo bokk koog moom mm-hmm. taalibe nga xam ni ñoom ñooy njabootu Serigne Touba gi sunuy mag su rakk kenn kenn kenn di sut ñun ñëpp daal gërëm naa lépp luñ ci mag ci ñu bokk koog yéen waaw taala jërë ngeen jëf kon nag laa am na antum xëy yàlla yàlla nañ ko yàgg fekk yàgg ko am raditu anil mawla ta'ala allazi rabba fadi wa anani wa akrimi rabba